moom musoo ma ko wax ne dina ci am maanaam yow daga na ma rek nan guerre su la neexee taf ma te soo ma dee taf ma lay may xaalis yow yaa ma wax loolu yow laay. waaw dama la doon pincé dama la doon pincé dama la doon pincé dama la bi ma taf noonu di ma saaga ñëpp ma ko yónnee. ñëpp ma yónnee vidéo ci TikTok bi laay ni mu demee nii. lu leer laa lay man li ma jaaxal booy yow. laay ana booy naar ana booy naar. booy naar moom moom suñu coow yoonam nekku ci parce que moom daa tëddee njaaxaanaay moom ku ko wax dara tooñ ko léegi nag yow. da nga am waxtaan nga ak booy naar wala yow waxtaanoo ak booy naar yow damay laaj. yow sa décision bi ngay def ndax yow décision bi yow yaa ngi koy xalaat li ngay def yaa koy xalaat wala xalaatoo ko nii rek wala li ngay def yaa yaa ngi ciy waxtaan ak nit yow ñu lay conseillé. sëñ Bara man geeru maa yow ñu nekk sa ginnaaw di la gonfale ñooñu laa bëgg a xam ne seen loxo jotul foofu seen loxo daa am fu mu yem loxo bu gudd laa lay jaay ñoom loxo bu gudd laa leen jaay laay géey mën na si bii boor mën na ah, boor léegi daal léegi daal maanaam li metti daal li metti daal man maa koy dekk mais yow kon mais yow kon nga rey ma defal ndànk rek yow kon nga rey ma parce que yow bu fekkee ne yow maanaam lu metti li moom man maa koy dekk mais kon ma gën koy léegi nag. instant toni est-ce que ce que pare nga pour pour lan ma waxoon nga wax ko léegi yow da ma maa defal vidéo léegi dama lay laaj kan kan moo la doon wax naa la dalal ci kaw laagee kan ak kan. kan kan moo la ko doon wax. non li ma bëgg laaj yow yow da ngaa yor vidéo wala yoroo sama vidéo yow. waaw vidéo bi kay mi ngi nii dañ ma koy yónnee mu ngi nii ala vidéo bi. kii tax mu lay wax lii. yaag délégué Amar délégué Amar. yaag délégué yaag délégué Amar. war ma vidéo bi ma xool vidéo bi ma xool vidéo bi. damay bañ dugal ko fii mu mu mu ko dugalee day tëb. day tëb mooy bi ma tee di ma saaga di ma wax lu neex ñu ne ma laay kilifa gi doy ni yow nga ànd ak président de la république di Macky Sall di sa xarit sama xarit bi nga xam ne tey jii nii wàccee ay conteneurs yi Macky Sall ñëw di ko visiter ma bokk ci dëkk bi bada maxu suba teel di sama xarit bokk ci état bi xam ñëpp am connaissance nga may tëkkaleeg koo xam ni dina falo du falu mi ngi toll ci ay nit léegi kooku nga may tëkkaleel mm-hmm. ah mm-hmm. bada danaa la woon la man maay laay VIP gëy bu jeexee jeex na courant du pile yàllaa ko def mm-hmm. gaa yaa ngi woote naan la jéggalul ñu ngi lay suuxlu luñ lay gën di suuxlu may gën di mer

no pour ñëw foofu moom day wàcc sax parce que dafa réglé wu. non pour ñëw foofu nuyoo woo. te boo ñëwee ci kër da dugal ko dugal ko bul ñëw foofu dugal ko eh dugal ko bu ñëwee a bàyyi ba dal ba pare nga doog ñëw daal di doog a wax parce que. waaw léegi léegi dugal ko dugal ko. nit bu nekkee situation waru di ko gën a yokk kaa. Ousseyn maa ngi lay ziar. Bada maa ngi lay ziar bu baax. di la jox sa wàccuwaay. li ma dugg nag lenn rek la. bul tiit bu ragal lu dul yàlla neen la yaa ngi dégg bul tiit bul ragal kenn du la def dërëm dërëm du la ko def alhamdulillah dee bu dee ministre de l'intérieur jëlal boy naar jëlal boy naar bu du la def dërëm. jëlal booy naar. dëgg la. xam nga ay eh, jëlal booy naar. xam nga laa bëgg. ba ne. laa bëgg. wax ni nga waxee woon wax waxal ak moom ni nga doon waxee sa yuuxul dërëm duñ la ko def. ah ah. jëlal Boy Naar ba Boy Naar fekkee ko jëlal Boy Naar ba Boy Naar fekk jëlal Boy Naar. non laay kat da ngay déglu eh. jëlal Boy ba pare jëlal Boy Naar. ba ne gëm nga ma gëm nga ma wala gëmoo ma. gëm naa la gëm naa la bu wér. laay mi laay mi laay mi daf maa bokk ci dëkk bi. déedéet. waxal lu la. ba ne jëlal ci yow fukki dërëm. mënul ci dërëm. dëgg Bada jëlal Boy Naar ba pare da yow Bada jëlal Boy Naar ba pare fii ba nga jaayee sa drapeau yàgg noppi ak sa kanam guddi dim da ngay noppi laay waaw voilà da ngay noppi parce que li ma wax démb rek moo la metti wax naa la ko démb sa moroom nawlu yëpp dañoo toog ma ne la jëlal sa téléphone nga woo président moo géel jéggalu ko ne ko mu jéggal la yow nga looloo la metti laay <laughs> te danga koo tooñ parce que président moo géel yow moo la njëkk a jox xaalisam nga lekk yow fii ci réew mi. loolu ñun xam nañ ko. président moo gën li nga lekk ci moom kenn lekk ko ci moom. da nga ñëw da nga ñëw naan ko ay social. yow da nga naan ñëw naan ko ay social. te fekk ne du social sa poos la jëm. bi président moo gën demee ba xam loolu ci yow nga ba xam ne yow mii sàcc nga ah ci la jël ay précaution maanaam soo ko wootee doo ko jot ah sequt ak yow dara ngay wër ci dëkk bi. di yàq deram di ko defal ay vidéo Ari Seen Live lépp rek Ari Seen Live day leer Ari Seen Live bi non non eh. eh bada billaahi lii muy def nii naan Ari Seen Live bi barke alxuraan da tiital xoolal waaye am na ku woo nag am na ku jigéen ku ma woo ku nekk central ni ma trois heures la nga ñëw xoolal eh. xam nga xam nga bara. waaw Faby. su ma nee la dinaa la tëj ci live bi ñoo ñuy seetaan plus de neuf cent et quelques personnes su ma nee la àjjuma dinaa la tëj na ko ñëpp arrêté xam ne dinaa la tëj. Bada. waaw bul ko baalu àq tey bul ko baalu bis boo ko baalu àq jaay sa drapeau billaahi wallaahi dërëm munu ko ci yow maa ngi wax ak yow dafa leer yow ñu la defee appel wuy ma commissaire central boobu bi mu la woowee ci saa si laa ko yëg mën naa laa wax numéro bi la woo ak ban heure la la woo bi mu la woowee daf maa woo laaj ma ma ne ko kooku sama xarit la bu ko def dara dëgg la alhamdulilah rabbil alamin vendredi bul wuy bul wuy ji yow jotoo plainte sax kayit sax jotoo ko. dañ la waaw bu léegi nee leen buuse na bu ma. ma woo téléphone rek xam nga. dama woo téléphone rek dama daal dugalal booy commencé wax dama am naa seen vidéo. dugalal booy naar. man téléphone dama woo. dama bëgg affaire daal daal. bul ma ñaan njekk sama waay nga sama rak nga sama xarit nga bada daa am nekk ci ginnaawam ñooñu nekk ci ginnaawam naa ko lu la neex defal waaw bada yow bada lu tax ngay noppi bul noppi loolu moo la rek vidéo vidéo aariste naa ko ñu yónnee ma ko léegi dafa am lu mu wax ci sëriñu Baye Fall ak ministre intérieur bi ñu boole vidéo yëpp ñu ne ma laay kaa bi yomb naa rek le léegi nag affaire yi nan nga ko bëggee ma ne ko ci na ma ko dugal leen ko appel ba nga xam ne gars yi nekk ci ginnaawam yëpp xam nañ ni Bada Laye VIP pare na pour tëj ko léegi nag woon ne dara du leen bett ñu ne coppet Bada yóbbu ko garde à vue mu xool ba xam gars seen loxo egg na foofu wala eggu fa. kenn du ko. Eh, eh, laajul waaw. Eh, dégg nga bu soo may ma nuyoo. man xamal la moom mooy bàyyi ci live bi ah. Uh-huh. xamal la moom mooy bàyyi ci live bi. Uh-huh. nga yuuxu laay di ko tontu ma xam ne yaa ngi koy tontu te mënul ci yow dërëm boo ko deful damay dem. moom xam moom xam nga lu muy def ak kanamam gi di mel ni frontière u Mali damaa bëgg. voilà déglu ma rek. aari sële aari sële affaire bi. non rek daal. aari sële. laay de laay de yow. dafa ndànk rek yow sàcc nga. waaw aar këlëm. xaalis la moo gën jox nga sàcc ko ba pare. bañ président moo gën di ko wax. parce que wax naa la ko démb looloo la métti moo tax tey nga xëy feneen ma. démb dañu tëjee ci ma ñëw six heures ma ne la laaj nga ne waaw. man la neexul ba neexul mais président moo gën ku koy bañ ku ne da ngaa iñaan da ngaa soxor. parce que man xam naa la président moo gën dafa léegi dafa jël ay dalu hôpital. ay dalu hôpital la jël lu joxe ko. waaw yaa ngi dégg ci daara yi tabax fi hôpital di def social chaque jour. waaw tëgg lu pet sans combat la fi tëgg lu mal sans combat. le président moo gën tëgg. benn bokk na ci Bousse mi ak Boy Naar. waaw ak ñeneen ak ñeneen. kon dafa ne président moo gën. bëggul xale dem di agressé ji wala di sàcc ji. wala di yàq réew mi. moom day contribuer réew mi. yow mii nga yow man démb rek président moo gën Mouhamed Amar xaritam yónnee na ma deux cent mille francs. na ma joxal Zal Touré parce que day def ay jàng. waaw dafay def ay ndogu di ko yóbbu ci hôpital yi jox ko ko sama xaalis jaar. mu ne bu sëkk cëp la ñaari nag. ak benn mm-hmm. xar mbote. parce que comme mm-hmm. xam na ne dinaa ci jàng yi. moo tax mu ne ko mm-hmm. joxaale ko mbote. ngir bëgg xam naa ñu bernee la ma ko. mu ne ko jox ko ñaari nag ak benn mbote. pour ci mu yóbbu ko ci hôpital yi. buuse mi la ko jox Sall Touré mi ngi ci suuf te dina dugg. laay kooku di dimbale ay nit. di def lu baax réew mi. te du politicien. yaa may dégg takku fi benn doomal tànk. su ko nekkoon def ko Amérique boobu di jàppale ay yow mii nga koy iñaane di ko soxoree parce que danga lekk xaalisam ci lu lew ndax yow da nga doon wax social nga doon def moo gën di jël xaalisam di la ko jox yaa may dëgg mu jàpp ne ci social nga nekk fekk ne ah ay feñu nëbbu la nekkoon benn social laay léegi li wax ni yëpp aar woo nañ ma ni ma arrêté nañ ko parce que Sénégal léegi dafa toll foo xam ne lépp loo wax ni te amul preuve dinañ la wax ni la génneel preuve ji yaa ngi gën a dugal sa bopp. léegi laay gay eh, eh, man maa ngi nuyoo man maa ngi nuyoo laay gay maa lay nuyu suma mag ji maa lay ziar. di nuyu Bousse sama champion. di nuyu sëñ Bara suma sëriñ. te mhm. sëñ Bara daa am lu am ci live bi ci barki demb ngeen waxtaanee ko démb tamit ngeen waxtaanee ko léegi léegi léegi léegi léegi li tax ma demee ci live bi dama ko bëgg a siiwal. président moo gën woo na ma léeg-léeg ba boole maag ci war a jox saaliw ñaari nag yi alhamdulilah ba pare yemul ci ñaari nag yi kase am na beneen enveloppe bu ma jox pour yow ma jox la ko yow sa participation sëñ Bada pour ñu yóbbu pour yow nga yóbbu ko ci zaal comme que yow lañ pare ne bis du ko fekkee de non laay da may déglu nag laay da may déglu xam na moo tax yow suma frère nga suma mag nga léegi sëñ Bara mii laay doo ko sant de sëñ Bara kii laay da ngay rek doo sant sëñ Bara de sama sëriñ la de damaa jébbalu ci moom te daa bëri ay taalibe yaa ngi dégg te nag laay nag boo ko bëggee sànq ñoom président moo gën ñoom dañ ciy dugg de bu dee ci maanaam ciy dugg tamit boo xarit yaa ngi ciy dugg te vendredi soir nag dañ amali sëñ Bara ci dugg di ñu rek maanaam li ma dem fa rek xuloo saaga fay ndey ñu téye ma samedi tey di dimanche doo ko lijjanti sama kaar laa yaa soxor yaa bon. mais léegi léegi léegi sëñ ma na laa bëgg nga xam. buuse bi buuse bi buuse li mu la wax nee na la boo ci duggee tamit du wuti fenn nee na waxal lu la deex ndax appel bi nee na moom biñ ko woowee rek dañ kaa woo léegi nag laajee ngi nii sëñ Bada yaa nii buuse yow est-ce que nga garanti sëñ Bada barke Seydina Muhammadu Rasulillahi sëñ Bada mën naa laa jox numéro bi la woo dernier numéro bi ñett ñaari numéro yu mujj yi ma jox la ko ma jox la ko. dëgg la bul ko fi joxe. numéro privé la bul fi joxe numéro jàmbur. kon xam nga ni mën naa ko. loolu ma wax la rek dama la am na loo xam ni boo ko génnee fii numéro kilifala mais kilifa boobu woo ko man la laaj ne ma buuse kan mooy sëñ Bada comme yaa nekk ci tiktok bi ndax nit ku baax la wala ku bon ma ne leen ku baax la dañ koo tooñ mu ne kon du ma ko def dara. léegi Boy Nar taalal sa vidéo. sëñ mun naa laa jox mun naa laa jox ñaari numéro yu mujj yi ki la woo ñaari numéro yu mujj yi ma jox la ko. Eh, sëñ sama grand sama xarit. booy naa daa firi su xolam neexul. dama lay ñaan rek. lëx la yow dama lay ñaan. bu ma kenn ñaan ci weeru koor bi. non laajee ñaanuñ la rek. dama lay expliquer man li ma jël décision def ko kenn ci jëlee parce que vidéo lañ may yónnee mu def ko ci man dinañ ko laaj ba xam li nga def ci laay gi fan nga ko teg téléphone am sëñ ñu ngi koy déglu lépp lu mës a ak nit capturé nañ ko lépp luñ ko mës a wax ci laaj ay preuve yu leer nañ laa toog su ma la dama la avertir avant ma lay dama laa avertir dugal ñu laal la appel pour dara bañ leen a bett ñu naan yëguma ko woon sëñ Bada su ma neexee ñi nekk Europe ku ne ni cëpp Sénégal boo nee teg cëpp valise ñu jël ci la sama loxo egg na foofu Matar Diop suba kilifala kilifa la Pape Boy Niang sama mbër kilifa Boy Naar nii ma ànd ak moom mu war a daan Ketchup ba muy président di bëre di daan stade yëpp la bëre benn stade ko dese ku ànd ak laay ndam rek ngay am. sëñ Bada lamb ji doo ko fekkee ak ñaan yi sëñ Zal Touré di def yëpp doo ko fekkee dama lay téye garde à vie kenn mënu ci dara ba kenn du ko dindi. léegi yow dama lay laaj leen rek laa lay laaj yow. lan moo tax yow xeex bi yow xeex bi yow waxoo woon ne ma ay porte plainte ci la bokk parce que yow dang na ma bu la neexee dee ma saaga ay may taf ma lay may xaalis yow yaa ma wax loolu yow. maa ma waxal lu la saf yow du ma la def dara. yow mosoo ma wax na yow porte plainte da ce bokk. moo tax mais délitement moom seen dara xam naa li may man samay vidéo yi may dugal ci internet bi di ko laajte du ma dugal sama bopp cent pour cent maanaam quarante pour cent yi rek laay dugg taxaw. waaw yow da ngaa fexe ba mu dugg cent pour cent yi. ala Pape Diouf mu jël ala Pape Diouf laaj dafa plainte seen dara. nga déglu nga déglu Bousse ana Pape Diouf wala ñu Pape Diouf mu génn fii sëñ Bada Laye Gueye waru koo plainte sëñ Bada Laye Gueye waru laa plainte léegi nag booy naa ci gàttal. parce que ak lëkk la yow waru laa plainte moo gën a xam ne moo gën a xam ne yow jàng yi jàng yi mën nañ ko parane te xam nga maanaam norma bëgg mu leer rek parce que samay délégation laa fi àndal xam nga ne soxor ak iñaan weesuwut lii parce que leer na ma ne. sëriñ su bon si nekk ci tiktok bi ñoo la xabtal parce que yow. melo woon nii ma wax boog. waaleykum salaam wa rahmatulah. yow moom sëriñ see la xabtal sëriñ su bon si si nekk ci tiktok dan laa liggéey. parce que gëmoo gàllaaj yow jàpp la dafa yomb. bara. waaw waaw. maa ngi siyaar maa ngi siyaar Boucher di siyaar Boynaar. ak <laughs> laay mi ah. sab xarit la dana la baal dana la jéggal ndax bis ba maa yow war a ànd te Sall Touré la ko tuddee te waxaat nga ma ne lëx damaa bëgg a bokk ci ànd si délégation man la incha allah damay dem kon bis ba euh, laay duñu ko yàqal laay jéggalal bada mii te xam ne sa euh, sa rakk la sa xarit la njuumte la rek bara xol bu rafet la yor daa juum rek maanaam kanam gee njaam jëre waaye xol bu rafet la yor xam na ko yow da ngay wàcc ne lëkk lëkk li nga boo xam ne da ngay wàcc ne moom mooy kanam gu ñaaw xam ne nit nit gënu ko man lëndee jàmm sax dama am ngénte lëndee jàmm dama am sama doom baay joo xamante ne nii dafa war a tudd te dama fa war a dem lëndi ngénte loolu nag ñu nga waxoon ma ko ñu war cee ànd man a yow laay mi bëgg la ko aaye naan da day tëj loolu mënta ne waaw eh. par exemple moom ngeen laay woo léegi. yaakaar naa doom ja est yow lañ ko tuddee sax laay madame doom eh, laay loolu moom mais laay laay laay ngénte bi bada war a dem xale bi góor la te mën nañ ko tuddee doom bi ba pare nga bëggal ah, laay loolu moom loolu moom loolu moom laay moom loolu moom bu leen bëgg tuddee tuddee leen ko laay laay de bada bada am na xan Papito yaayam Papito am na Momo Belesima am na Boy Naar am na la am na le président de tous les présidents le cinquième président de notre république président moo gét am na Bousse Ketchup mais bada laajee mun laa tëj du la tëj ñoo ñëpp ñu waxee laajee day baax monsieur. non laaj jégal ko rek yow laaj borom baax nga la. yow nga boy naar yow boy ku déggal sa ndey nga yow saytaan nga. Bada bu ma saaga yow leer ma. Bada damaa woo bu Bada. yow lu Bada bu ma saaga damaa woo. Bada yow laa ma Bada yow laa que tey woo naa la téléphone. Bada déglu ma wax la ñaari baax. Eh, damaa woo. yow waaw bu ma saaga rek bu ma saaga waaw bu ma saaga rek man damaa wax yow ba léegi weeru koor xamoo bu ma saaga bada bada yow lay waxal bu ma saaga waaw déglu ma rek waaw bu ma saaga rek bu ma saaga waxoo jàmm da ngaa dugg ci bu ma saaga ni ñu waxtaan rek bu ma saaga man damaa wax waaw ma ne boobu ba léegi nangoo wax laa wax je vais dire quoi da ngay wax nga je dis quoi doo wax waaw loolu wax doo wax je dis quoi <laughs> wala yi ma ak sa bëgg ba man xam nga man la laa mën ibbi live wax nañ leen teral lay teral la ñëpp teral la ba tey moo géej di la teral ba sama xarit tuddee la xaw ma ay jàng ay pa Aziz man loolu rek laa mën man li ma mën su ngeen jullee rek ngeen ñaanal man loolu laa mën ci di wax ñu leen di teral yow doo man non la la yow yow nga yow maanaam su méttee rek yow su méttee rek nga daw yow yow maanaam. kuy neex daal da ngeen di ànd yow bu méttee rek nga daw yow doo nit dara. déedéet yow xaar ma wàcce la yow. non non yow yow doo ko bi waa léegi xaar ma jëli plainte bi xaar ma commissaire sa kanam. Eh, bul de bul génnee Boy Naar Boy Naar dafa am adversaire am bu muy bëril. bu génnee Boy Naar dugalal Boy Naar daa am fi adversaire bu ñu bëri fii. xam lu ma leen di wax mooy kaso ñoo koy ànd maag yow. déglu rek waaw dugalal Boy Naar ba pare dugalal Boy Naar. waaw man la taxaw waaw kii la la dama koy bàyyi ñooy ànd dem kaso. mais wuyu ji laay ba laay de bu ko plantoo a su ma wuyu ji ma damay démarrer damay gunge Bada. nga tëj sëñ Bada tëjaale ma man Zal laay de tëjul ñu ñëpp sa bopp yow. te moo gën bu taxee nga tëj ñu tëj di nga ma a jàpp bëgg koo toroxal lan la. xam nga dafa doon jaaxal na moo mujj def vidéo. <laughs> moom moo vidéo boobu noon dina mujj tourne seen côté yéenay def vidéo di saraxu. mais Bada mais mais mais Bada il se permet de qui d'insulter les gens Bada il se permet de qui di def ay diffamation ci nit ñi il faut respecter les gens du nekkul da nga toog Sénégal um, booy naar wax nañ la teral nga commencé am cent mille deux cent mille ba ay millions rek bew da bew foo nga di saag nit duñ ubbi robinet bi robinet bi ubbeeku rek nga bew di saaga dañu amoo ci benn droit. waaw léegi booy booy naar xam nga àdduna da ngay mën a xeex xam nga ay eh, am na ay bel eh, Serifa mi ngi foofu mën naa yóbbu añ. Serifa mën naa yóbbu añ. man de waaw Chérif mais man li ma lay wax yow Laye Gueye en tant que Laye Gueye a yaa ma seede ak Boy Naar plainte bi boo yeboo def ko ñaar te plainte bi bu dee wér na mooy jàng yi bàyyi naa ko ne ñëpp bàyyi teraanga yi ma ànd ak seen ñu dem kaso. ah bon. waaw. yow léegi yow dafa ndànk daal. man tapatuma de man ragaluma. problème bi mooy Laye dafa yor sama vidéo dama yoruma vidéo. loolu mooy wax ji. non yow mën nga toog yow gérer rek sëñ bi dem ci kaso bi. yor vidéo wax ji coow ba ma ne laaj ci ko prendre comme témoin. sëñ Bada kon man man bàyyi ma jël jàng yi def ko yow nga dem kaso. garaawul nañ ko gérer yow. voilà très bien. Ah. kaso ba incha allah. man maa ko wax te yow demal rek booy yow demal rek yaa tax mu jox ma ko. yow dañ la tëj rek sa gàttaay. teraanga yi ma bëggee jox yaa tax mu jox ma ko ak boo buusee booy naar ak kii léegi nag comme demee na noonu yow séeréel kaso bi teraanga yëpp dinaa ko def yokk ko indi ñëpp ànd ak mbooloo ñëw fekk la fa jox la. merci beaucoup teraanga ci kaso bi loolu maa ko assimilé. Mm-hmm. waaw waaw li ma bëgg a fay am moom kaso rek. kaso rek laay laay est-ce que mënul am laay nag day dégg lay waxtaan booy naar laay. ndax kii sen bara dala saaga nga bëgg ko plainte yow booy naat yow mi yaa indi coow luy lépp mais laay yow saa bilaay booy naat yaa xam nga ma jaara bougé sëñ ah, sama copain yi ma ko présenté woon yëpp waaye ah, da ngay déglu sëñ Ba sëñ Bada moom la ñuy toog. laay rek moo ci da laay nee na sëñ Bada la plainte mais laay bis boo eh. sëñ Bada moo tax la laaj liggéey moo ci dina ndax moo ëpp ëpp loi Italie Italie moo ëpp loi bis bu laay tëjee rek président moo gën dina ko tëj Italie ndax moom mi daa saaga daa saaga président moo gën moo gën yow vidéo yi mayel mayel Bouta wax man loolu ma jaaxal nag waa Aziz déglu ma xam nga sànq ba tey maa ngi koy wax faalewu ma dégluwu ma uh-huh. Boy Naar yaa ngi may dégg Bada mi may dégg Zal mi may dégg. laay sama newul ci moom Pa yaa ngi may dégg. waaw man nee naa ko laay bu nekkee borom réew mi man lan laa ci réew mi. waaw yow mi fi nekk actuellement. te moom yow da ngaa mën a yow da ngaa mën a teel ñu tëj ban. yow dimbali ñu waa yow ngay yow di. naar kii def dëri. kii di tontan. naar lii du signature contrat wuy ma rek. commissaire procureur bi woo Bada. waaw procureur bi woo Bada ah ne ko na nga wuy si àjjuma procureur bu jigéen la bi mu ko woowee ba pare man la woo laaj ma ci Bada ma ne Bada bu baax la mu ne ma kon koo ki ma jaxaseeg moom waxul dëgg damay dindi plainte bi léegi man. su ma léegi ndax may woo trois heures man moo ma jaaxal léegi lan moo tax mu doon moom naa ñëw trois vendredi soir vendredi suba suba laa jëmale. vendredi rek am nga président moo gën bu ragal. defeere ajuma dem rek defeere. léegi defeere rek duñ liggéey dimanche. kon nag di nga tëddi kaso bi. bala nag mënut da lay jàpp mënut da lay jàpp mënut. badal. eh Zal. Zal. dinaa woo Pape Diouf léegi ak Matar Gueye suba teel parce que non dafal ndànk rek attends jox ko bi mu xam ne procureur dafal ndànk rek jox ko numéro dafal dafal ndànk rek bu buuse ñëw buuse dafal ndànk bi mel ni yaa moom nit ñi buuse tiktok bi mel yaa moom nit ñi bul dem de di sama jàng yi non sama waaye de dama ko taal ba mu am xaalis mu commencé ma des adversaire bàyyi leen ñu tëj rek non léegi ñu def leen naar bis ni ki tey mu arrêté live bàyyi la nga continuer live mu ñëw fa ne ne woon rek ndax man non man sama live xaju ci woon man weeru koor lañ nekk jàgg di yàq moo koy moo koy sama live bu dugg moo koy teral ma